xibaari biti réew yi koy dooree ak dëkk bii di Soudan Amérique ne dina fa taxawal gouvernement boo xam ne civil ñoo koy jiitee ginnaaw Omar El Bashir bi mu daanoo terewul ay ñaxtu di am ca xàttum ci kanamu quartier généralu armée ba donte couvre-feu ba fa amoon terewul askano wàcc ca mbedd ma fi mu toll nii nag ña yore ga xam le na ne dinañu amal waxtaan waaye kii di Omar El Bashir ko jébbal mu ko yoonu bitim réew mu nekk nag kàddu yoo xam ne ka ko yëkkati jiite comité politique militaire ba muy kàddu yoo xam ne ñi ngi ko doon yëkkatee ci janoog taskatu xibaar ñu dem ba Kenya ñaari fajkat yu fekk baax réewum Kiba lañu fa fëkk ñu jàpp ne nag ña ko def ci sabab yi la ñu bokk ñoom nag gannaaw ba ñu dem ci hôpital fa lañ leen jëlee ci dëkk di taxawalee seen oto daal di ay sox jëmale ko ca ñoom kenn ci takk der yi ko dóor bal ka ca des rek foofa nag fekk sabab yi bari fa loolu di way ngànnaay yu defi ñaawteef doon nañ fa sax jéem a tabax ak am miir ngir tàqale leen ci atum 2015 waaye liggéey ba daa amu kii ku ca am fitna ya fay am nag ca dëkk luñ leen di xan ci wàllu koom-koom lu ci mel ni carrière ba fa nekk nga xam ne ñu bari doon nañ fa liggéey te jamono ji nag tëj na waaye itam ay jàngalekat yu bari yoo xam ne jamono ji doon nañ fa ñaari faj yi fa njëkk a bokk ci téeméeri médecin ak fukk yi ñu yóbbu woon foofa ngir ñu taxawu waa àll bi ñu dem ba RDC di république démocratique bu Congo njiitu réew ma ñu ngi koy xaar ci yi ngir mu fas yéene fa waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci ñàkku kaaraange muy bu njëkk nag biñ ko falee ak léegi mooy dem ca biir réew ma war na faa jiite benn waxtaan bi yar lépp nag jëm ci ñàkku kaaraange nga xam ne ma ngay wulee ñaay ca réew ma ca fan mujj mujjee nag am na ay baaraamu tuuma yu ñu yëkkati woon jëmale ko ci ña nekkee ca kujje ga waaye tam tuumaal ko jiite woon ministre du Ngaygo waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko weddi ba mu set kàddu yu ni jeexalee ko ak réewum France Emmanuel Macron àndul ci waxtaan wi war a am ci diggante Union européenne ak réewum États-Unis d'Amérique moom njiitu réewum France wax ko mu leer nañ ñi xamle ne ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jaay ak jënd waaye nag muy xamle ne taxawaayam boobu amul dara lu mu war a mën a yàq élection européenne bi mu nekk nag kàddu yoo xam ne bi mu ko yëkkatee ba léegi daanaka coow a ma ngay gën di wéy ñu bari di ko waxtaanee ñuy xool nag ba xam kàddam yooyu dina am donte bu jóge bitim réew wala déet jërë ngeen jëf mbokk yi li indiloon ci xibaari bitim réew yi